emphasis ñoom ñëpp ñu ñëw tey ngeen bugg toog di wax nan Aïda Mbodj mooy séddale naan Aïda Ahmed Aïdara dina bokk du am bokk kooku moom du bokk Ahmed Aïdara du bokk parce que moom jàngul probabilité xamul le train l'a laissé derrière Assane Diouf du bokk parce que jàngul probabilité xamul la ne Diomaye mooy nekk président Bougane du amet Ahmed Aïdara moo fi wax ne Malick Gakou mooy sama candidat man maay Ndiago Sonko su ma jàppee dossier du ma la bàyyi man bu ma la commencé attaqué yàqu nga bu leen ma xet de <laughs> Sonko daf may seetaan de xanaa léegi la sax la ñu dindi sama sama compte TikTok sama compte bi ay cent mille vues laa doon am xam naa nag waa ji am na lu mu wax lu ëpp ba TikTok dindi dindi dindi dindi dindi euh, nu mu tuddati compte compte TikTok bus bobu bus euh, euh, ñu un Antoine mo fa attentat bus maris maris koy dem <coughs> ah soxna ah, ngoog ah xalé Ah, dama lay wone est-ce que bus bobu bam, ko defee sama waji un TikTok Je di ko reprendre amoon vues sax ma kay sox bu defee am 70 000 vues waaye kay day toog 3 jours 4 jours dëgg man chaque jour laay def laaj samay 2000 vues ak samay 1000 vues wala samay 87 personnes bu leen ko xeeb de man bu mu la commencé attaqué doo nekk ministre Maître Tall du ministre de waxuma ne man ci laa bokk de waaye dafa yàgg def toj-toj <coughs> ma yàgg ko daal Ahmed Aïdara nan la fi Sonko nekkee nga naan Malick Gakou mooy sama candidat. loolu loolu nan nan la mën nek yow yow Sonko motax nga nek député Sonko motax nga nek maire yow sa bopp waxal nga ko sa bop waye da ngay né iñane Fall avec sa formation de militaire j'ai fait l'armée de l'air j'ai fait l'armée de mer j'ai fait l'armée de terre je sais faire la guerre personne ne peut faire terre Gàccee Fall je suis le mandataire plénipotentiaire je suis le mandataire extraordinaire de yow askan bi moom parti PRP parti des retardataires prioritaires kooku kan moo ko gën a ñàkk chance yow Sonko dalaa wóolu def la mandataire <coughs> tey wa nga waroon nekk ministre si tu bi pas la grosse tête man Mister Shake bu ma leen di digal doo leen ma déglu gàcce faal boo ma déglu woon boo ma déglu woon tey di nga nekk ministre mën na sax def ministre de l'intérieur parce que nga da nga am formation de militaire Sonko wóolu la nga dem ba ci bir nga am la grosse tête boo ma déglu woon monsieur Cheikh mën la bul ut candidat bul ut parrainage ñëwoon rek nga def Cheikh comme Cheikh Tidiane Dieye Sonko rek fi nek Cheikh Tidiane Dieye dama ko defal promotion Sonko daf may setan de Cheikh Tidiane Dieye dama ko tag ba ñëpp bàyyi Sonko man ma fi nek mané ay de Mame Mbayor rek mo fi dess <coughs> ak Cheikh Tidiane Dièye le docteur Cheikh Tidiane Dièye moom rek a fi desoon ak Maïmouna buso waaye kooku tamit dafa mujj dem mu mu trahir Sonko Maïmouna Bousso trahir entre guillemets parce que Maïmouna Bousso gisu leen ko mu ne day nekk candidat parce que amul moyen Cheikh Tidiane Dièye gisu leen ko mu ne day def candidat parce que amul moyen waaye Cheikh le le docteur Cheikh Tidiane Dièye docteur en yow Sonko bañ koy bañ koy sonnal ci corniche bi kenn gisu la Sonko ñu patam patamee ko ah sorxo sorxo ko patam patamee ko sonni ko sànni ko ay gar grade euh, lacrymogène ñoom Azura ñëpp ñu fa woon mais yow gisuñu la fa nga bàyyi ba yëfi jeex nga dem kër Sonko man foofu laay doogee xam sëñ Diagne Diagne installé ci salon bi ba mu nice jël caméra bi sol sa veste di lakk say tubaab naan je suis le je suis le docteur Cheikh Tidiane Diagne on se fout la mooy docteur Cheikh Tidiane Diagne faire sa live rek non fait def promotion ba ñep xam ko Sénégal dañu mëna self promotion je suis le docteur chancher Tidiane où est la caméra où est la caméra principale RTS vous êtes là Sen TV où êtes-vous France 24 est hein, ma caméra est-ce que Nous sommes Euh. Euh. Hmm? euh, euh ma li fi un message est-ce que ma caméra est bien ajustée yàlla bu sama euh, euh, euh, yalla na continuer di man live live parce que courant dafa couper live may wote ni live amerique la te mang ni jot ben message xamna naa ñu ngi naan ma sa connexion léegi mu jeex Cheikh Tidiane Dieye je suis le docteur Cheikh Tidiane mais ba ba ñëpp bàyyee moom mi ngi continuer di génne ay lettres di attaquer Macky Sall Macky Sall di japp nit ñi nit ñi ragal man damay suivre information de ci la ne sortu yeen bi yi géré la

comme ça Sonko joxoñ ñu bu ma Sonko joxoñee xam naa da ko dikk mën naa la sax def ministre man bu ma Abib Sy bu ma nekkee premier président may mën a mën naa la def ministre de la femme peut-être may mën a bu sa sonnal nit ñi Sonko dina tànn bu baax Sonko dafay joxoñ ma ne ku fi joxoñ ñu doxaan sax ku fi joxoñ ñu doxaan sax Papa Alé Niang di wax joxoñ ma ne bu leen ñu sonal Sonko oto joxoñ lay def oto joxoñ wala mu joxoñ jomaay mais à part ça ku fi joxoon ñu joxaan sax ñun dinañ liggéey ñuy liggéey ba ko yekkal <coughs> ñun suñu nous les ko parce que mon moo ne le Camara Sonko éliminer Diomaye éliminel képp le pasteur, Sonko dina fait Il déjà Diomaye ñu ngi naan am ans dina xool Sonko parce que pouvoir le pouvoir le pouvoir corrompt mais Diomaye du trahir Sonko xalaatu ko xelam xalaatu ko na jël pouvoir yëpp mu jox ko premier ministre pouvoir yëpp na ko jël mu jox ko Sonko topp ci ginnaaw Sonko nee naa man su ma doon Diomaye Sonko koy utal appartement ci biir ci biir suite laa koy ci biir palais ba ana jamankaa dama koy utal appartement mu sax na xadi saa ñu bëggee ñëw ñu ñëw parce que ñoom ñooy président sam papa 102 ans loolu la wax xam ne bu nekkee président Sonko tax Sonko ku ko sangu sanku amul Pastef amul opposition moo laa wax na ko ku ko songu sanku moo laa mii way way bi moo njëkk songu Sonko sanku moo laa moo songu Sonko sanku Adji Sarr sonku Sonko daanu Maître Diouf songu Sonko xalangu Mati Pom songu Sonko jëfru ADF xam ngeen kuy ADF ay sëtu Diop songu Sonko juutu un uh. Farba Ngom songu Sonko juutal un uh. képp ku songu Sonko yàlla toroxal na la muy Barthélemy Diaz muy Bougane deuxième tour muy Ahmed Aydara ndaare buntu kus mi ne woon Malick Gakou mooy candidat Malick Gakou am 6433 voix rek la am avant ndaare Habib Sy mooy ndaare Malick Gakou ak Ahmed Aydara ñooy ndaare ndaare buntu kus lekk kàttu ñàmbu Mamamet Aydara ndaare buntu kus lekk kàttu ñàmbu mbam Ayda Mbodj ndaare yàlla du juum say or yu bari balaa may dee mu ne maa yaayu Sonko Ahmed Aydara ne Ayda Mbodj mooy yaayam parce que fi mu nekk Ayda Mbodj mooy siis nit ñi di wax kii du bokk kii dina bokk Ayda Mbodj ci boppam warul bokk dañ ko war a def ambassadrice génne ko réew Mimi Touré ambassadrice ngeen comme Sonko da de a rus Sonko bu ko defoon euh, ministre de la femme fan la ñu jëm Bambey yo, lay jël yóbbu yooyu jeex na toog muy dox dégg naa mooy terme mu bees bi toog muy dox jeex rek di def say revue de presse mouy dox jeex na Ahmed doo bokk soxla ngay jéem a baab Aïda Mbodj yow yaa ne Gakou mooy sa président mooy sa candidat yaa ko wax di tëkku Sonko Ismaël Ousmane Noël Dieng ci Macky Sall la bokk daf fi gennon mu man duma ma Sonko parce que Sonko def ma dara yow nga genn di attaquer Ousmane Nawal Dieng nan ko nit da ngay saf yap wala nga saf lu nga ragal xaaral lundi dina, wax Papa Pastef lo xamne ci la ko génneel vidéo am 63000 vues ma ko Ahmed ñu ngi lay xaar le faux faux le faux euh, sëtu yonent bi la yow bo jige dox yonent bi moy sa mam yonent bi du jël ndara de xanaa da nga fatte wax sa mam mu ñaanal la yow sa maam mooy yonent bi nga jël ndaare avant ndaare ci ay élection amet war nga xoolaat sa bop surtout yonent bu ñuul amul do surtout yonent bi bul ñu sonnal gars yi maa ngi <laughs> j'espère que yéen ngi may dégg Sonko ku songu sanku am len ngor vous avez joué vous avez perdu nek fi di jéem a sa image Ahmed Aïdara en tant que maire nga nek fi def ay revue de presse do dem nga liggéeyal sa dëkk 79 millions yi ñu lay jiiñ nga jëm ko ligganti parce que boo ko lijjantiwul ñun maire Guédiawaye dañ koy nangu Barthélémy Dias maire Dakar dañ koy nangu maa ngi gis Akhenaton teg la pression affaire sentiment moo jeex Sonko affaire sentiment moo jeex Ahmed Aïdara wax yow da ngay jéem a bokk yow doo bokk bu ko sonkoo defee directeur wala mu def ko dara dinaa ko mere trop Ousmane Sonko man nag Sonko def may déglu de maa njaagu Sonko de avez fait Ahmed avez dara dina la Vous Lol, fait Fall bu avez xel du nek candidat tay moy nek place Cheikh Tidiane Ahmed Sonko Vous ko way ku nek sa bop ba vous avez joué vous avez perdu mais gem len yal au moins Ahmed Fall Vous ko mu nan muy djema ñewat Ahmed parce que ne mënul mais Ahmed ayda dafa lu fii doo fi burux lu de doo fi surux suruxlu nee len jomay da fay jomax jomaxi ba pale eh Sonko day buruh lu ba pale Sonko suruh suruh lu ba pale wow, kay len ñu ñamax ñamaxi mati pom ken du ko sorxo sorxo ba pale pastif da kay tempo tempo ba pale gay ma maa ngi album ñaanal len ma sama buma defar son yi Ahmed Aïda dafa bugg suruh lu ba ñëwaat c'est trop tard tu as joué tu as perdu gëmal yàlla defal comme Bougane te nga ñaan ñu bañ a nangu mairie Guédiawaye Ameth tu fini septembre dans quatre mois bu ñu élection anticipée dootoo nekk député Battle Diaz dañ la war a dañ laa condamné dañu war ministre de la justice Ousmane Diagne dafa war a bind lettre ñu nangu député bi léegi ñu war leen ñu wax leen ne lépp dëgg la Sonko mi ngeen di xeeb vrai sadique la il va vous détruire nee hein, naa leen Sonko mooy John Wick C'est dama leen ngeen seetaan film qui en arrive. John Wick boo ko tooñee day jël temps après day ñëw de la traquer benn par benn boum boum boum boum dama leen ngeen seetaan John Wick chapter four Sonko mi ngi ñëw dal seen kaw billahi wallahi ta'ala. Sonko mi ngeen di xeeb il est impitoyable Mamour Diallo la gën a yërëm sama xarit bob. Sonko julli la de waaye il est impitoyable Mamour Diallo laa yërëm sama xarit boobu Farba laa yërëm mais surtout Mamour Diallo parce que Mame Mbaye Niang sax ñu ngi naan def na deal ba ñu Macky Sall xëy na projet protégé na ko ba ñu signal ko nu mu traité IGE signal ko benn rapport rapport bi ne Mamour Diallo kii Mame Mbaye Niang sàccul dara Mamour Diallo maa bloqué man lu tax parce que maa ngi koy wax dëgg bàyyil bàyyil Macky Sall bàyyil affaire Sonko bi aduna jaru ko yaa keur ño bokkon class xolal ci man ño bokkon class te yaa yor ay keur man monsieur Cheikh maa ngi nii bu sama keur papa lay nek ni da ngay gëm yalla waye bëgg nek poste ministre wala bëgg amat kalis, jar na ngay affaireu Adji sar nga nek ci di ci nek nit ñi di dé ñu taal si sa sama sa mam dé ci sa yaay dé ci même semaine ci même semaine événement marché bi Mamour Diallo yaay mamam gañu na maamam 106 ans li wax na xeyna ci lama méré mu bloqué ma audio yi ma ka daan yónnee di ko di ko xelal ma teg ko ci internet bi xëy na loolu la ma mere mu bloqué ma koo xam ne dalaa tuddee doom di la wax dëgg boo amee loo koy wax boo jëlal téléphone ne ko ay Mister Shake su ma sañoon daal audio yi bu ko teg wala léegi li mais doo ñëw rek nga bloqué ma man nga xam ne sa xarit laa ñoo bokkoon classe man liggéey bon bon liggéeyal naa la ki Sall nga gagné Macky moo la trahir yàgg naa ko ko wax billahi wallahi taala booy mere demal mere Macky Sall bul mere Sonko Sonko defu la dara Mamour Diallo lii laa ko wax 2019 laa ko ko doon wax Sonko deful la dara daf la accusé man maa ngi lay défendre ci 94 milliards ne Sonko génne preuve yi loolu laa doon wax Sonko wax na ne 2 milliards jot naa génn d'accord kon kay 2 milliards du 94 2 milliards yi Tahirou Sarr lañ ko jox man maa ngi lay défendre lépp lu ma mën waaye Sonko defu la dara booy mere ki la dàq parce que patron bi la dàq Macky Sall dama nga mere ko. kon Mamour Diallo warul woon di ma parce que man même bu fi Macky Sall nekkone gagné Mamour continuer nek directeur de l'ONAS loolu warul tax mu yakarne ne gagné mu nek directeur de l'ONAS est-ce dafa tax ma baye sama liguey ñew ne ko jox ma délégation spéciale wala xam nu ko tuddé sax ñew jël ma ma liguey fi ma nek la nek bloqué ma gën ma bloqué tay lay gëna wax deug même bu Sonko nekkon ci prison bi defa Mamour nga nek milliardaire du tere yaay nek ya togn boko fayul fi ding ko fay fële alaxira mais gis nga yalla limu mu def sax yalla jël yoon bu gatt bi legui makki mi ngeen don top diko jaamu dem na Mamour fo jëm Ousmane Diagne moy moy moy ministre de la justice te Ousmane Diagne li tax mu dàq ko yow ya ya tax ñu dàq ko Ousmane Diagne ya tax ñu dàq ko parce que yow la convoquer ko dafa def plainte ci yow ak ak ak euh, Kabicho ci affaire Adji defe na pour nga wuyu si Macky Sall daal di ko dàq est-ce que yow yaa woo Macky ne comme xoolal li Ousmane Diagne def wala makki xool ne xoolal li mu dàq la mu dàq ko tey kooku mooy ministre de la justice te kooku bu ñu demee six mois bu ñu demee six mois mën na génn waat sa dossier ñu ne la yaa taal réew mi yaa def lii yaa def la amnistie bi dafa am lu mu protégé ak lu mu protégé woon wala ñu génne affaire 94 milliards yi même boo deful dara sax ñu takkal la parce que mere nañ la loolu nag man digaluma ko Sonko su ma sañoon du ko sax laal da koy bàyyi di lay wala lay tàllay man loolu digaluma ko waaye Sonko il est impitoyable mooy John Wick de lu baala de man monsieur Cheikh xol yërmaande bi ma am Sonko am na ko de waaye dafa am ñoo xam ne Sonko du leen baal. soko am ñu xamne talu len ay aji Sarr yi Sonko talu mais Mamour Diallo mok Sonko dañu am ben animosité bu nek seen digënté parce que ñom ñaar ñep ay inspecteur des impôts lañu ñoo bokkul domaine Sonko bu gonne fi ben terrain siège Mamour momako netali xawma tax deug lolu deug Mamour ci bopam netali na mais Sonko ñëw na ba ci bureau ne ko dama bëgg nga jox ma terrain sangam pour ma def fa sama siège pastif Mamour ne ko. mais xaaral ma xool loolu moom waxuma ne dinaa ko def waxuma ne duma ko def mais Sonko dafa jàpp ne Mamour dafa bañ Mamour nettal na ma loolu kon ñoom ñaar yàgg nañu am ay problème xëy na sax am na yeneen yoo xam ne Mamour wax ma Mamour Diallo tey il a un sérieux problème bu yóbboo mu dem sëñ Mountakha parce que sëñ ko xaar ne mooy doom doomam la mu jéem a ut protection foofu waaye Sonko du baale de Sonko is coming for you ñu wax John Wick is coming for you Sonko is coming for you Sonko mi ngi ñëw daal seen kaw parce que waxoon nañ leen affaire Adji Sarr bi teg leen ko fële poste jaru ko directeur ONAS jaru ko ay milliards jaru ko yow Mamour Diallo am nga kër sa kër Tivaouane bi tabax nga ko bu yàgg kenn mënul wax da ngaa sàcc sa kër Louga invité nga ma mais këru Tivaouane bi comme château ma 30 chambres bi nga loolu ku ko am lan ngay namati yàgg nga def ay gàmmu chaque année. 8 ans avant muy xam Sonko dana def gàmm foofu di rey ay gëléem di rey ay nag milliardaire nga avant Macky Sall yow am nga li ngay am inspecteur des impôts cadre nga ENA ya da ngaa jàng li nga am yaa ko yaa ko utal sa bopp parce que ku dugg ENA jël premier génn jël premier ENA ku fa dugg énarque nga énarque borom xam-xam nga xaalis bu weex tal lañ lay fay dégg naa ñoom ñoo ëppale woon sax xaalis Amadou Ba wax Mamadou Diallo salaire directeur ñom sonko ñoko ko pon salaire xool leen sonko kërëm bi nu mu yànjee nit da ngay doylu waye top xaaliss wala bëgg tour dama bëgg nek maire Louga dama bëgg makki joxoñ ma nek président may nek li ba yàqal sa bopp tay man de yoruma ay kër waye maangi maangi ci jamm kenn du mënul wax ni dama dañ ma dama sacc 94 milliards wala man ma tax aji sar wax li ba kon nag lii na ci ñëpp jàng sama xarit Maam jaloo bu dee may dégg su ma mënee contact na ma contacté ma jéem ko xelal li ma ko mën a xelal Ousmane Sonko li ma koy digal mooy bu mu ko topp yàlla bu la suturaale sama papa sax loolu la wax 102 ans parce que yooyu Sonko ci kàmm nga nekkoon pare woon nga pour dee Sénégal man nee naa leen am na vidéo boo xam ne Sonko def na ko ne vidéo bii boo leen ko seetaanee mooy wane na Macky Sall li mu buggoon ci man am na ko rey na ma bu ma reyee nag tere projet bi day continuer def leen lii def leen lii def leen laa man loor na ma ne Sonko def na vidéo bu mel noonu ba muy wax vidéo bi jox jomaay laa joxañ ñu ne am na yeneen ñaari vidéo yu des ñaari vidéo yi man gëm naa ne benn bi loolu la parce que Sonko pare woon na pour dee pour Sénégal comme yàlla def na nag deewuloo <coughs> benn ñaar yaa nekk ci pale ba kon dangay sant yàlla nga am xolu yërmaane nga bàyyi ñii maamu ma maam may ñaar sax dañ ko baal signalé leen ko papier ne ko demal Maroc ci Macky Sall Mamour Diallo bàyyi leen jàmbur Adji Sarr bàyyi leen jàmbur Mati Toapom bàyyi leen ko Kaliphone bàyyi leen ko ñoom ñëpp ñëpp li ñu war a enquête mooy ana ñu yor nervi yi ana gànnaay yi commissaire Sangaré leen jàmbur juge Mamadou Seck bàyyi bàyyi leen ko waaye nu ñu def enquête général Moussa Fall sax sonnal ngeen ko bàyyi leen jàmbur waaye du tere nu ñu def enquête bu ñu defee enquête ñu xool fan la yooyu nekk fan la nekk comme ça loolu dootul amaat Sénégal waaye fayantu amul amul sens man de maanaam man billahi man maa ngi nii monsieur Cheikh waa affaire bu la neexee ñu ñëw jël si ma léegi yóbbu ma paquetage du tere su ma génnee dama naan bu la leen laal parce que ñun doon xeex ndam bi doon ñaan mooy Macky so ñoom ñu dem loolu la doon ñaan dem nañu xale yi dinañu liggéey dinañ wàññi gaal gi. ñun loolu lañ doon xeex ragal ñu kaso de ñun loolu lañ doon xeex bàyyi leen gàcce mi ngi leen di rey Adama Fall xamatul lu muy wax Aïssatou Diop Fall xamatul lu muy wax ñu ngi ci télé di wax rek Lonase bàyyi na ko Aïssatou Diop Fall nee na Lonase bàyyi na ko amatuñu amatuñu ku leen di sponsoriser